nekk ci liste bi tey bokk ci xam nañ ko ndax mbettal la ci man sax ndax danoo joto jokkoog man ci ay bis yu weesu wax ma ne ma yow day kenn du wax Amadou Ba fii di def dara ci cees ndax ba mu mettee xeex bi dëkk bi tàkk yaa ko fi wax yaa ko njëkk a wax ci Sénégal njëkkoo investir muy ñëw senegal nga dagg billet d'avion ñëw tertu ko cees muy ñëw cees nga ñëw tertu ko mu dem pari nga fekk ko pari campagne jot nga ñëw campagne financé jigéen ñi lépp nga koy def ci turu Amadou Ba ngir mu am ndam kon bu ñuy wax dara ci Thiès ba ñëpp rasoo ba président Macky Sall ne tey leen yow yaa taxaw ñu déedéet du fi am kon yow de kuy liggéey ak président Amadou Ba fii ci Thiès waru la cee mooy moo tax ñu bëgg ànd ak yow ñoom ñi nekk ci ci ci coalition ci ci Abdoulaye Dieye wax nan ma ko ñi ànd ak Awa wax nan ma ko ñi ànd ak ki Seyni bu njëgeen wax na ma ko kon ñooñu bu ñu àndee. wax ni man mii man la ñuy xaar ñu ànd dem xeexal Amadou Ba coalition bi fii ci cees ñun ñëpp ñoom ñëpp am nañ mbetteel ñoom ñu investi sax am na mbetteel waaye lii Abdoulaye Guèye def kenn rafetluwu ko man rafetluwuma ko waa Thiès rafetluwuñ ko ay góor danoo tënk mu génn doxale neneen coalition jàmm ak njariñ ñu waxtaan ci jàmm ngir jariñ askanu moom gisu fa njariñam mu daw rocceeku wor mais fa mu dugg moom a jaaxal gàcce la ndax fa mu dugg président Macky Sall mi waroon président Amadou Ba ci élection yi moo fa ne ki nga xam ne moo fi nekkoon premier ministre nekkoon ancien maire de Thiès bi nga xam ne opposition bi dañ ko woowee woon nitu Thiès ndax ni mu leen defoon daw wuti ji Macky Sall fekk ko fa moom mu ñëw ñetteel leen kon coalition boobu ñoom ñett ñoon ñun leen mën a tuddee waaye ana Thiès waay man Ousmane jóg ak gori Thiès yi maa ngi leen woo ak képp koo xam dal la investir ci liste bi ñu jóg nekk ay goru Thiès ngir sauver honneuru cees ak honneuru cees waa ndax lii kenn waru ko bàyyi mu jàll saa yu leader politique Thiès waa jógee di wax wala mu lëkkalikoom nit rek ñi ngi xaar mu war ko waaye man maay gor maa ànd ak Amadou Ba ci ngor sonnal ko ci ngor lobbiwuma ba taxaw lobbiwuma pour gis Amadou Ba lobbuwuma pour ñu investir ma defuma dara man day damay li may wax Cees waaye jar yaral leen ma seen bopp miin ngeen ko samay wax ñi ma daan dégg ci émission bi may wax yàgg na ko fi ma ko njëkk a waxee Sud FM Cees la man leen yaral leen ma seen bopp damaa bëgg ngeen yaral ma seen bopp bu ngeen ma yaralee seen bopp politicien bi ngeen dëgg nan moom laay doon ndax yéen a ma yar ci bañ bi ci dëggu gi ci yërëm askan wi ci yéwén nungoo liggéey nungoo daan nungoo dimbaliwate yor xol bu set bu leer te ku ma digaaleel ci tool bi boo dawul duma daw. kii waa cees man damaa fësee ne doon daa am ñu ni wooyu nitu cees ma bëgg a doon goru Thiès ngir setal Thiès xeexal Thiès doon goru Thiès nag da ànd ak gor yi nekk cees am na ñuy bañ la preuve en est que maa ngi sant Thiès waay yi ma gis. fun mu musaan ci réseaux sociaux wala lo mu di gis gisoko ko commenter gisoko ko partager dara manam waa partager wuñu wor wi waye kon paré nan pour partager go ku man ngir lan ngir ñu am jamm réew mi am jamm Sénégal am jamm Sénégal jariñu ñu ñëpp ñu jariñu su ko ma wax leen ñi leen man sumay andeng ak nit damay and ak mom di wax deug damay ànd ak di ko maytule di ko jàppale sama nit duma bëgg mu jël ndaare sama nit duma bëgg ku ko faqastal ko lol taxna ñi bëgg faqastal président Amadou Ba fi war na rendre compte kan mo fexé ba Abdoulaye Dieye dugg ci liste bi amna yenen ci eswa yo xamni war na no bali ndax ndaxte amna ño xamni élection yi dañu encaissé ay alalu Amadou Ba ay millions yi Amadou Ba président Amadou Ba pour wax dañ koy jappalé fi ah? ci mu bari lol am ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay nit yoo xam dañuy jàppale Amadou Ba jël seen alal investir ko ci ay yenn leaders yi aussi jàppale leen seen i manifestation pour ñu taxawal Amadou Ba kon ñoo ñooñu kon jëloon xaalis boobu war na noo mën a ñëw tey taxaw Amadou Ba fii la leen soxlaa pour que ñu ànd doon gor wane ni ñun duñ bokk ci ceesuwaay yu war duñ bokk ci ay gor lañu su ko defee kenn bañ a cautionné lii ndax nag lu tilimal deru Cees daa daa daa yomb parce que bu ko benn leader defee keneen def ko dan naan dina am troisième de waaye troisième du am parce que ay boru Cees ñoo jóg dem ba mu toggoon naar yoon ma xam ne moo boobu neex naa la taxañ ñoom ñoo yor nguur gi te niñ ko yore gis na ñoom amuñu loxo yuñ taxaña pour taxañ foo nga am loxo te amuñu loxo moo tax téewuñu nguur gi Sénégal nëmmeelu Sénégal métti na vraiment Sénégal métti na man xam naa ci dara ndax bala nga ko xam nga doon borom kër di dimbali nit di toppatoo nit ñi doomu aadama yi di nga xam ne Sénégal métti na parce que koo joxoon benn boo ko joxee ñett mun la matut koo joxoon fukk koo doon dimbali démb boo ñëwaatee tey nga defe ni tey tànne na tey nga ko gën a mën a dimbali ku doon wut fii ci Sénégal boo yegsee nga li nga yor matoon dara boo ñëwaatee di nga xam ne booy ñëw dootoo ñëw benn man bu ma daan ñëw fii am na enveloppe boo xam bu ma ko yoree damay couvrir ba mu bay waaj dem li ci bari ma joxe ko aéroport dem sama mais tey booy ñëw da nga naan loolu naa ko multiplier par 6 par 7 nga xam ni kon Sénégal métti na te loolu man bi ñuy investi jomaay fekkuma fi waaye diggante bi ma ñëwee ba fii man xam naa ni réew mi métti non waxuma loolu de fa ko Macky Sall joxe moo baaxul Macky Sall la ko joxe réew moom Macky ko joxe parce que man damaa waxoo ne Macky Sall Macky Sall la ko joxe man foofu rek laa yem Macky Sall la ko joxe amul leneen sénégalais yi amuñ dara luñ amu ci benn responsabilité